asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication li ko soxal mooy bés yu mujj yi nga xam ne nag am ki fi nekkoon président de la république di Macky Sall nekkoon ci bopp réew mi ñoom ak ñi mu doon liggéeyal def nañ ay mbir yoo xam ne jur na coow bu baax a baax jëmale ci yorin wi ci suñu réew yorin wu sell wi nga xam ne moom li ñu doon wax saa su ne ginnaaw fukki at ak ñaar yoo xam ne ñoo nekkoon ci bopp réew mi yi jur coow bokk na ci ñuy siife ay décret yoo xam ne nag di yokk li mukk ñi nga xam ne ñooy am passeport diplomatique yi ñuy utal xëy ñu bëree bëri ci ministère yi ak it contrat bi nga xam ne jur na coow lool te mu jëm ci seppi bépp xorom ci géej gi bu ñu jugee ci régime bi nga xam ne président Macky Sall moo nekkoon ci bopp ba ñu jàll ci bu yees bi li ko soxal mooy seppi tege na le jëfin yi nga xam ne moom lañ doon nemmeeku ci doomi réew mi rawatina ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyal état bi looloo waral bataaxal bi nga xam ne président de la république Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am di Ousmane Sonko moom la ñuy jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci administration bi waaye nag Sud Quotidien di xam le ne lii dugg léet am ab gouvernement boo xam ne dafa bëgg agent yi nga xam ne ñooy liggéeyal administration bi def ko te mu mucc ayib yàgg nañ def li ni mel donte nag lañ ca doon xaar gisuñu ko ñu des ak nguur bu bees yi ak sàkkutee fi président bi di Bassirou Diomaye fay bi soññ ñu siiwal rapport kuréel yi nga xam ne ñoom la ñuy dénk ñuy saytu lu askan bi nga xam ne dañu ko dénk ñenn ñoo xam ne dañoo faree ci nguur gi ci diggante atum 2019 jàpp atum 2023 ci loolu nag waa réew mi quotidien di xam le nag jébbal nañu commande bu njëkk bi Bassirou Diomaye Faye démb ci alxamis bi nag siiwal na yenn ci ay rapport yi nga xam ne tudd nañ ci ay kilifa yu bëri soxal na lool bu baax a baax ñi fare ci société civile bi ki jiitee Legs Africa di manaha bi kan na ndigal bi nga xam ne moo bawoo ci njiitu réew mi nag dañu ko war a gën a ñoŋal def ci lépp loo xam ne moo ci war dañ kaa war a topp ba mu jeex ci la ñuy des ndax wàllaas ñu ngi xamal ne nag ginnaaw gi ñu siiwalee yooyu les rapports diggante atum 2019 jàpp 2021 mbóot yi nga xam ne moom la ñu nëbboon jëmale ci ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon bopp réew mi dellusiwaat na ci kaw table bi te ñëpp di ko waxtaanee mu jëm ci Diop Sy ak doomam bi nga xam ne nag rapportu OFNAC bu atum 2021 tuddoon nañ leen ci ak it mbirub juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yi nga xam ne tuddoon nañ ci Mamour Diallo loolu it tegaan nañ ko ci table bi moo tax ñuy jëm lépp lu ñu doon nëbb dana siiw gën a it leeral yorin wi jëmale ci koppar bi nga xam ne askan bee ko moom dañuy des si siiwal yooyu le rapport ak waaye yor-yor bi ñuy xamle ni ci bu atum 2021 bi jóob si doomam bu jigéen ak Rayane Hachem nag tudd nañ leen jëmale ci koppar yi nga xam ne moom lañ dugaloon ci mbas mi ci mbuur moom li am ci diggante mairie bi conseil départemental bi ak Auchan bi tey na xel lool. ñu des ak waa yoor yoor bi ndax naka yeneen ëttu yéenekaay ñu xëyee ndool dellu si nañu ci tukki nemmeeku bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Faye doon amal démb ci Nouakchott ñu xam le ne diggante gi la ñu gën a rattaxal bu baax a baax gën ko ñoŋal noonu it la waa Le Soleil gisee ñuy dellu si ci waxtaan bu yaatu yaatu bi nga xam ne moo amoon démb ci diggante Bassirou Diomaye Faye ak naataangoom bi di Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ndax waxtaan nañu dossier yi nga xam ne moo soxal ñaari réew yi ñu jox ci kàddu ki nga xam ne moo teewal Mauritanie suñu réew di Ahmadou Ould Ahmadou moom nag nee na bill tukki dana gën a dëgëral diggante gor a tax gi nga xam ne am na suñu digg waa gànnaar Bassirou Diomaye Faye ak al nii gën a rataxal diggante gi rawatina ci wàllu gaz bi wàllu njënd meeg njaay mi ak ci wàllu napp bi ak yeneen i wàll bu ñu sukkandikoo ci le quotidien bés bi le jour yi di xamle ne Algazouani ak Bassirou jomaay fay ñoo boo ko gis-gis suñu naataango yi di waxtaanee tukki nemmeeku bi nga xam ne ëllëg président Bassirou Diomaye fay dana ko amal ca Gambie ci diggante ñaari réew yi nag lu bëri jaar na fi te waxtaan bi nga xam ne moom la Bassirou Diomaye Faye nar a sekk ak naataangoom bi di Adama Barrow bi ko nar a dalal danañu waxtaanee it wàllu pont bi nga xam ne lu soxal ñaari réew yi la bu ñu jógee ci président bu yees bi di Bassirou Diomaye fay ñu jàll ci xëtu yaatu yaatu yi nga xam ne moom la Henriette Niang Kane jagleel ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci bopp réew mi li ko dalee Léopold Sédar Senghor jaar ci Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall tey nag Henriette Niang Kane ñu gën a xam lekk maître Abdoulaye Wade ku amoon solo la nag ci alternance politique bu njëkk bi nga xam ne moom la ñu amal ci suñu réew ni mu ñëwee ci bopp réew mi ñu bëree amoon yaakaar ne ñu soppi doxalin bi jëmale ci wàllu politique teg ci gën a ñoŋal suñu démocratie ak it yorin wu sell ginnaaw ñeent fukki at yoo xam ne waa parti socialiste li nga xam ne ñu bëri ci mujjanteel nga bëggatuñu leen woon gis si bopp réew mi moom lañ amaloon maître Abdoulaye wadd bi nga xam ne moo ëpp ay diplôme ci l'Afrique lu ko dalee Caire ci Égypte jàpp Cap nekk ci Afrique du Sud ginnaaw ñaar fukki at ak juróom benn yoo xam ne nag daf ko nekkoon ci ku gi ni mu yëgee ci bopp réew mi nag li gën a fës mooy partem bi da ko def moomeel ndax moom rek moo doon buum di buum mi ci biir parti démocratique sénégalais te yi daal mu gën a yokk doole président bi mu nekkoon daganal it li nga xam ne mooy ñiy jóge ci benn parti jàll ci beneen Henriette Niang Kandé ci biir Sud Quotidien dellu si bu baax a baax ci jaar-jaaru maître Abdoulaye Wade ci weeru septembre ci atum 2002 junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti bakken ñoo des si géej gi ginnaaw gi bato lu joolaa suuxee bato bi nga xam ne nag dañ ko yeboon ba mu fees dell te lu ko dale woon ci atum 1991 moo doon yóbbu askan wi ak seeni alal ci diggante dakaar ak ci Ziguinchor ci wàllu tàggat yaram nag waa Sud Quotidien di waxtaanee 32e de finale bu coupe du Sénégal équipe mbuur bi di Kër Madior bokk ci Ligue 2 moom fexe na ba am ndam ci kanamu Guédiawaye FC bi nga xam ne moo jël ñaareelu place bi ci Ligue 1 bi mu dóor ko ci ñaari bal ci benn ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye champion d'Afrique de génération foot ñoom nag dañoo mujj dem. ci li nga xam ne mooy série tirs au yi ngir mën a jàll ginnaaw jàkkaarloo bu méttee métti ci seen digg ak waa Sonacos ba tey ci wàllu football Sud Quotidien mi ngi ñuy waxtaane nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la Olympique de yi amoon démb ci Vélodrome waaye mujj na dóor Benfica ci benn bal ci dara jëmale ci Ligue Europa bi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool yendoog jàmm Bonjour. À quelques jours de la fin de son mandat, l'ancien président de la République Macky Sall et ses collaborateurs ont fait naître de nouvelles controverses dont la gestion des affaires publiques, souligne le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien, comme si la bonne gouvernance ne pouvait cesser d'être un vœu pieux, même après 12 années de villégiature dont le Macky, entre signature de décrets élargissant considérablement la liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques, les recrutements massifs dans les ministères, le contrat problématique de dessalement de l'eau de mer et octroi tendancieux de la concession de chantier naval au groupement Dakarnave, entre autres scandales ou couacs, la polémique s'est installée selon le confrère de l'avenue Bourguiba, qui revient également en détail sur les autres scandales et maladresses héritées du maquis. Après le régime Macky Sall, place au nouveau régime qui veut un changement de comportement à tous les niveaux. L'abandon des mauvaises pratiques devrait commencer par les agents de l'État, ce qui justifie la lettre du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Toutefois, on note que ce n'est pas une première qu'un gouvernement milite pour un service public de qualité. Des initiatives dans ce sens, il y en a eu de Macky Sall sans que les résultats escomptés ne Rappel, Sud Quotidien, qui, tout comme les autres confrères, nous parle également de la publication des rapports des organes de contrôle, notamment pour ces cinq dernières années. Une décision du président de la République qui a été approuvée par les organisations de la société civile. Selon le président de l'ex-Africa, Eliman Habikan, c'est une directive présidentielle qu'il faut renforcer, amplifier et suivre. et il faudra des mécanismes opératoires de suivi de ces rapports. Avec la publication des rapports des corps de contrôle, les CAFA ressortent au grand jour. Intime conviction de l'AS, notamment les rapports 2019, 2020 et 2021. Ces trois rapports qui ont été publiés sous l'ère Macky Sall. Ainsi, certains dont les populations avaient oublié les scandales ont vu leur dossier ressurgir sur la place publique. C'est le cas de Diopsi et de sa fille épinglée par le rapport de l'OFNAC de l'affaire des 94 milliards dans laquelle incité Mamour Diallo a également refait surface. D'après l'AS, il faudra donc s'attendre dans les jours à venir à des révélations sur la manière dont l'argent des Sénégalais a été géré, puisqu'à côté de ceux de l'OFNAC, les rapports des cinq dernières années de l'IGE et de la Cour des comptes seront rendus publics. Yori Orbi de souligner que Diop sa fille et Ryan Hachem sont trompés dans le scandale Covid. Alors qu'à Mbour, les connexions mafieuses entre la mairie, le conseil départemental et Auchan ont été relevés par l'OFNAC. Yoor-Yoor pour ce qui est des contrats pétroliers, Birahim Seck du Forum civil plaide pour une renégociation. L'OFNAC livre une première commande à Bassirou Diomaye Faye d'après Rewmi Quotidien avec l'office qui a rendu public ce jeudi une série de rapports dans lesquels plusieurs personnalités publiques ont été épinglées. L'OFNAC passe tout simplement à l'action suite à la demande de publication des rapports par Diomaye Faye. le chef de l'État Bassirou Faye en visite hier à Nouakchott, lui et son homologue Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ont planché sur les grands dossiers qui lie les deux pays, ce qui pousse le soleil à dire que les liens entre les deux pays sont consolidés. Et d'après Ahmedou Ould Ahmedou, l'ambassadeur de Mauritanie à Dakar, cette visite va donner une impulsion certaine aux relations déjà solides. Restons avec cette visite, avec Nouakchott qui déroule le tapis rouge à Diomaye, d'après réussit sa toute première sortie diplomatique avec cette visite officielle en Mauritanie, renseigne Réumi Quotidien. L'axe Dakar-Nouakchott a été fortifié d'après Dakar accoste au nord, selon le quotidien. BDF et El Ghazouani plaident pour l'intensification des liens dans les secteurs du gaz, du commerce et des pêches. Pour Bës Bi Le Jour, Diomaye Faye loue de larges convergences de vues avec Ghazouani après la visite du chef de l'État en Mauritanie, place à celle en Gambie qui intéresse également le confrère qui affiche que de l'eau a coulé sous le pont dans les relations entre le Sénégal et la Gambie. Le président Bassirou Diomaye l'unité. Et parmi les sujets qui seront abordés figure en pole position le pont de l'unité. Place à présent au dossier signé par Henriette Nyonkandé dans les colonnes de Sud Quotidien, dossier intitulé 4 hommes en état, Léopold Sédar Senghor, Abdou et Macky Ce vendredi, Henriette Nyonkandé nous parle d'Abdoulaye Wad et du fils, acteur principal de la première alternance politique à la tête de l'État sénégalais. Le président Abdoulaye Wad de changement de mœurs politiques, et de transparence après ans de règne d'un parti socialiste socialiste devenu impopulaire malgré le système politique pluraliste. Celui qui s'était opposé pendant 26 ans avant d'accéder à la magistrature suprême gère cependant le pays et son parti comme son patrimoine en étant la seule constante, s'abandonnant dans une présidentialisation accrue du pouvoir anoblit la transhumance, mis très souvent les institutions en question et s'enferra dans un projet de dévolution monarchique du pouvoir avant de passer la main suite à l'échec d'une troisième candidature à la magistrature suprême, toujours d'après Henriette Niang Kandé, en emportant avec lui l'espoir d'une consolidation du système démocratique par le rétrécissement de l'extrême concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État, qui est le plus et de nous rappeler qu'en septembre 2002, la côte maritime sud du pays est devenue le funérarium de personnes de 12 nationalités par le naufrage du bateau le Joola surchargé qui assurait depuis la liaison maritime Dakar-Ziguinchor et retour. Onze ports la formation bourgeoise de Keur a réussi à éliminer en 32e de finale de la Coupe du Sénégal le deuxième de Ligue 1 FC en le battant 2 à ou Sadam Doubari de Guédiouaï. D'après Sud Quotidien et quant aux champions d'Afrique Génération Foot, ils ont été contraints de passer par l'épreuve fatidique des tirs au but pour composer leur ticket face aux huiliers de la Sonacos. Et pour ce qui est de la Ligue Europa, c'est la délivrance pour l'Olympique de Marseille. Le club phocéen, fatigué et sans idée, a eu toutes les peines du monde à battre Benfica 1 à 0 en quart de finale retour au Vélodrome